Réunis nous sommes jàmm moo leen tax parti bi yagna, partie nañ ko Mais nous constaté bu lancé mouvement d'hommes d'arrêt, parti bi commencé na

loolu nag daf ñuy interpeller interpeller président Macky Sall ne ko réew mi nit ñi jàmm dañ ko yéene na bàyyi ñi ñuy jàpp dugal ci kaso yi rawatina kilifa daara yi nga xam ne gis nañu ni commencé na leen jël di dugal ci kaso yi mën naa ne ni dañuy invité président Macky mu parce que tamit bu ko ñu ko wër waxu ko waxul en face mom war nañ ko wax ba mu comprendre xam luy bi démocratie la démocratie est démocratie liberté donc boo bëggee réew mi dal da ngay may nit ñi jàmm nit ñi tam may la jàmm réew mi ku ko war a jiite ëllëg yàlla rek a ko xam amul am pexe boo xam ne doomu aadama mën na ko def ba génnee koo xam ne yàlla moom la tànn pour mu mën a jël réew mi donc jàpp naa ni dara jaru ko fi Sénégal ñun ñoo ko bokk

bokk ci responsable yi mu libéré leen dem seen njaboot ñu mën a continuer ku ci nekk ci loo nekk nga nekk ko parce que tam ay responsable lañu ay père de famille lañu ay am responsabilité yu am solo si biir réew yi ubbi na benn bunt caabi bi bunt bi def na benn tuuru caabi bunt bi nag ubbeekul ba léegi bunt jàmm te saat na beneen tuur boo xam ne bu ko tourné mu libéré détenu yi bàyyi Ousmane Sonko. détention arbitraire bu mu nekk ci kër góor gi def élection réew mi am jàmm ñu continuer liggéey Sénégal bi nga nous ne même ñëpp moom bëgg Sénégal bu Sénégal boo xam ne jàmm fi am te jàmm moom fi sax